ahlan wa sahlan ci yéenekaay yi mbokk yi mu ngi noonu couvre-feu bi ak état sant sanitaire bi nga xamante ni moo tere woon waa Thiès ak waa Ndakaar nekk ci seen liberté jeex na démb donte nag mbas mi mu ngi wéy di faat ay bakkan ndaxte jamono bi lu ëpp junni nit ñàkk nañ ci seen bakkan tukkee ci feebar bii di coronavirus waaye loolee taxul ni léegi moom nit ñi amaat nañu seenu liberté journal L'As moom li mu xam le moo di fin du couvre-feu et fête de la libération journal L'Observateur moom nee na jamono bi ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor boîte de nuit bu mat sëkk la ñu am le ñoom nag nee nañ donte nag nañ li nga xamante ni moo di couvre-feu bi ak état sanitaire bi taxul nag dinañ gën a sàmm nga xamante ne moo di euh, mesure barrière yi doxu nemmeeku bi nga xamante ni moom jiital parti Pastef mu ngi woy di ko dox ngir nemmeeku yenn ci sénégalais yi journal yu bëri dikkat nañ ci Le Soleil sax dikkat ak ñun ci ñëw gi nga xamante ni Ousmane Sonko ñëwoon na ko foofu ca groupe Futurs Médias ba sax mu waxtaan ak ñoom dinañ xam ne ni que yéen daal seen liggéey rafetlu naa ko lool ndax ànd na ak transparence journal Source A moom li ko yëpp moo di démb Ousmane Sonko gisee bu mu gisee ak Ahmed Khalifa Niass ndaxte ñoom ñaar kat ci ginnaaw daan nañ njaqante lu ne Iran Irak nañ doon dund moom Ahmed Khalifa Niass ne na Ousmane Sonko la bokk moom moom Ousmane Sonko itam ne Ahmed Khalifa Niass daal nit koo xamante ni day dem ci dëkku naari di dóor looloo waral journal bi ne ndax lii du ab théâtre ndax Ousmane Sonko fa fa nga xamante ni da ko daan xeexee système tey jii ñëwaat na waa système les échos di firndeel mbir mi ne Ousmane Sonko daal solidarisé na ak ñi nga xamante ñoom ñooy waa groupe waa yemul foofu daal di juboo ak ki nga xamante ni moo di Ahmed Khalifa Niass journal la si xëy amal gëstu gu yaatu ci li nga xamante ni moo di GP maanaam ñuy faral di jëlee yóbbante ci bitim réew andi ko fii ci biir réew mi loolee kat journal bi bu mu ci gëstu gis na ni que am na ay jafe-jafe yu bëri yi nga xamante ni mu ci biir bëri waana ñoo xamante ni de yenn saay ay cocaïne la dugal ci seen yóbbante ba mu jural leen kaso waaye itam bëri waana ñi nga xamante ni bu ñu buggee setal seen xaalis ci foofee lañ koy jaaree yëpp tey jii yéene kaay yëpp xëy di delloo njëkkal suñu maam ji di la professeur amadu maxtaan Mbow moom nag tey jii lay féete ci téeméeri atam yéene kaay yëpp dikkaat di ko sargal ak ko dagal waaye ak ko ñaanal ngir yàlla yokk ay fanam Sud Quotidien moom di misaalee jëmm jii ni ak trésor la boo xamante ni daal mu ngi dund moom nag nekk na koo xamante ni moo njëkk a nekk njiital UNESCO fii ci biir réewum Afrique di ko ñaanal yàlla yokk ay fanam mbokk yi jërë ngeen jëf ba suba gàmm incha allah